برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله حق حمده حمدا جامعا لوجوه المحامد وصلى الله وسلم بأشرفهما وأكملهما وأتم سورهما على خير بني بشر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا أبي الأباس أحمد بن محمد الصالح من التجاني شريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي أن أحسس حالس الشكر إلى حضرات السيد العزيز المحترم باي الشيخ أحمد التجاني تريد أتى الله بقاءه الى الآمن وين بالعافية العبدية الى الآمن والسلامة السرمدية بجاه شيخنا نعم التجاني الشريف بركة مولانا شيخ الإسلام شيخ إبراهيم النص سيدنا الشيخ damay wax ترو njabootu imam Ahmed Chérif Ibrahima Mouhamadul Hafiz mi tëdd fii ci kanamu penku jumaa ji muy sama wayjur 95 la fi tëdd ba tey ji nii Alaaji Abdul Aziz si sa baay bu baax ba bu mag ba ibnu Seydil Hadji Malick moo ko fi denc ak Thierno Mountakha ñaar fukki at la rawanteeg Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass كرم نياري باي نفا امنا فترولو نياري ترولو مكني تاي تد بي مو تد في تي تورم تورو جمعة ليبرتيسيس تورو دكولو ليبرتيسيس ما يور سين كاتو دي وخ مرحبا لني وحف مرحبا قولها في اللفظ متهد lakinnaha bi ixtilaafi nnaasi taxtalifu bég nañu mbég koo xamante ni keroog bi sayfil wujuudi ne tekk tànkam ci Madinatu Munawwara mbég googu ñu amoon ñun tey mbég googu la ñu am ci yëkkati bi nga yëkkati sa tànk teg ko fii ci Liberté 6 maa ngi lay seedeel ni sa wayjur wi tëdd fii ci kanamu jumaa ji fekk maa ngi lay seedeel ni Mawlana Cheikh al Islam mi nga xamante ni moo nekk fépp tey ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane Touré jërëjëf Baye Cheikh Ahmed Tidiane Touré jërëjëf Baye Mokhtar jërëjëfati Baye Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfati Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim xeet yépp ma topp maa ngi ko am ci barke Cheikh na ma Tijaan yi barke Rasulillahi tey ji nii Cameroun a ngi màggal tey ji nii Nigéria ngi màggal yonent bi tey ji nii Baye Cheikh na Tijaan yi dajale mbooloo mi tey di màggal fii bàyyi ne xeet yépp ma topp Cheikhul Xayr ngënk bu toll noonu deret Seydil Wujuudi boobu mag ñëpp shérif yi ñëw nañu xutba yi ñëw nañu laxtaab yi ñëw nañu ñëpp ñëw nañu ndax xam nañ ni kii moo doon Cheikh Ahmad Tijaani yi xam nañ ni kii moom moo doon Rasulillah ah ñëpp a am bàyyi waaye boo nee bàyyi am na ci ku xel yi dem nee na xeet yëpp a ma topp awaluhum hawsa wa ahlu jarmaa كذاك تخم الخير فيه معمى بايني كذاك كتكلي وفرفر وعطر كذاك كنجرة ومن فيج روى شي باي وقوم قرما حب الشنقا فلا جاووا وولوا أحزوا عني الولا بايني وجاءني موسى كذاك يربع وونغرا كذاك جاءني بمبرا وجاءني من برنو والمراقي قوم كرام رحمة الطلاق أين برهام وما برهام حتى فلو في حبه وهام باي نالي بكين من كنتون بالسين ناعيا وكولخة تدعو قد أبند الرحالة كن سنغ بتدبي بي boo ñëwee ci bërëb bu tedd bii ci ndax lan sa jëwri bii sa taalibe bii sa soppe bii nga xamante ni yaakaarul ku dul yow muy kan muy barxam seydi bii dëkk bi dëkk bu rafet dëkk loolu yëpp bëgg ko fonk ko naw ko ndax lan ndax tegginam ndax yaram ndax lislaamam waaye jëf ju baax ju jekk joo xamante ni jëf na ko ci gox bi am na suma benn dijaay maa ko mag foofu waaye nag kilifa kilifa lay tudd day jàngale alquran ay xale yu bëri nekk ko faas li ngay def ci daara ji fii ci na Ndiaye kenn mënu ko ci li nga ci mën la ci kenn mënu ko jumaa ji liñ koy tabax ma di ko liggéey maa yor liggéey bi sama loxo li mu ciy defanteeg man kenn defantewu ko ci mais loolu yëpp lu muy def ci sa tur la ko defee turu maqaama Ibrahima la koy defee turu ansaaru waa kër Mawlana Cheikh al Islam moo koy defee bu dëj amee mu ñëw ci turu waa kër Mawlana Cheikh al Islam bu takk amee mu taxaw bu lu mun a am taxaw mu taxaw waaye nag wax dëgg yàlla la ñu wax ah góor gu baax gi wax nga ko de ku nàmp meew gàll deret demal nga faju ci xam ni feebar dala dugg ku nekk la nga nàmp moom ngay gàll waaye nag jëmm ju baax a ngi nii jëmm ju tedd a ngi nii waaye nii nag la mën a mel lu tax ndax barigo bu fees dell ak diwlin ku ca tàbbi boo ca yàggee niin boo ca yàggul niin te ci barigo bii la daan Baye Cheikh Tidiane ñëpp bég nañu ci turu Ali Beyti Muxtaar yëpp ñu ngi feddali kóllëre ak cofeel suñu diggante ak yow ñun mag a ñu jur mag a ñu uuf waaye bañ la nee jàkk la ñu xam ni wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin la woon ca mag na guddi fii par rapport drapeau l'islam du daanu mukk ndax fu jàmbaar daanoo yàlla yëkkati beneen jàmbaar mu téye flambeau bi mu te tey nga téye flambeau bi téye bu rafet bii ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla fekk sa fan ba li nga bëgg ci diine gi ci tariqa bi ci mbokk gi yàlla na la ko yàlla defal li nga bëgg ci faydu bi yàlla na la ko yàlla defal ndax nag wax dëgg yàlla ah xalé nak nag dañoo am ci ñoom yaakaar ndax bu fekke da ngay kat sa lepp nga amé ko ci wax nga tawlu sa taw muuma sa yaakaar tas way di sa yu muuma wu tuddu yalla tuddu yalla di tuddu yalla rek boole seen xol di benn boole lepp di benn nii rek xolal ni ngeen ak sëriñ bi nii rek nii rek nii rek ba aljanna ñi bëggante ngir taar bu ñu màggatee bàyyante ñi bëggante ngir alal bu alal nga bàyyi jeexee ñu bàyyante ñi bëggante woon ngir politique sax bi alternance amee bàyyante de waaye cofeel ngir yàlla gëj a du ko yàq tukki gu yàgg du ko yàq tëraayu feebar gu yàgg du ko yàq dee du ko yàq yàlla ne ñu bëggante te yàlla tax àjjana mooy seen dëkkuwaay yonent yàlla Muhammad ne al mar'u ma aman ahabba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh